salaamaaleykum sant leen gërëm leen ci àndandoo beeg télévision Futur Média benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci soxna sa boobu boobule bàyyeeko ca Italie te indi jàngoro yi coronavirus bi fii ci réew mi moom testé nañ ko ba gis ni dafa jël jàngoro bi ña bokk ca njaboot googule yi te ber nañ leen jamono ji xamuñu na ndax dañ koo am am déet ñuy xaarandi résultat analyse yi ministère bi ñu dénk wàllum euh, wér-gu-yaram def na taxaw seetlu ci jàngoro yi Covid 19 euh, bile fii ci réew mi. kii di ab britannique te amoon jàngoro bi jamono ji nag ñu ne moom wér na ay jafe-jafe ci wàllum wér-gu-yaram ca cité Tawféex bu Tiwaawan ñi loru woon ci mbënn mi te ñu uh, dugal leen foofule ñoom nag ay jafe-jafe yu bëree bëri la am ngir daal di faju benn poste de santé moo am foofule te daanaka jumtukaay yi dafa néew loolu ñaar fukk ak ñaar notaire yi tàmbaleegul liggéey fas yéene door ab ñaxtu xiifal ëllëg aljuma li ñuy sàkku ci njiitu réew mi mooy mu xaatim seenub décret bi tax ba ñu mën a door seen euh, liggéey boobu boobule beneen ponk ci xibaar yi ñi yëngatu ci mbayum ndër bi nekk ca mbooroo rawatina pombiteer mer bay futu euh, seen i pombiteer googule dafay nëb yenn saay ndax du ñu am ñu ko denc wala sax nag ñuñ ko jaay ñu ne dafa am ñeneen ñu ñëw juux ci marché bi euh, ba tax na ay jafe-jafe la leen jural tàggat yaram ak arbitre yi yëngatu ci wàllum làmb nara kon boog wala sax door xeex bi seen digg ak CNG de lutte ñu ne dinañ amal ab doxum ñaxtu ci ay bés yu néew ginnaaw ba CNG boobee ca boppam jël ay daan teg ko ñeent ci arbitre mbokk yi loolee lépp tënk la ne suuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi mbokk yi xibaar yi dañ koy door rek immigré sénégalais boobule euh, bàyyeekoo ci Italie ñëw fii te ñu ne dafa am jàngoroy coronavirus soxnaam tamit jël na jàngoro boobule ginnaaw ba ñu euh, defee ay euh, analyse ci moom ñeneen juróom yu nekk ci njaboot gi jamono ji sax nag ber nañu leen moom ca diwaanu Touba Mbacké ca poste de santé bu Daaru mar Marnaan fa lañ ko jëloon ba xam ne dafa am jàngoro boobule tey jile sax ci ngoon médecin chef district sanitaire bu Touba ci euh, xibaar yi tukkee ci wàllu woowu le dañ fay dem ca diwaan bu sell ba fekk ji fa Mouhamed Jo Diop maa ngi lay nuyu. Mouhamed Jo Diop. soxna Natal ñoo ngi lay fay bu baax a baax. waaw di la ziar Mouhamed euh, niñ ko déggee kon mu mel ni soxna sa waa ji ñu ne démb dafa am jàngoroy coronavirus moom it euh, ñu ne jël na jàngoro bi te am na it ñeneen ñu bokk ci njaboot bi ñu berle ndax mën nga ñoo wax ci xibaar yu mujj yi foofule. ñaareelu cas bi nga gannaaw moodu moodu boobu nga xamee ne jóge woon na Italie juróom benn fan ci weeru mars atum deux mille vingt ñëwoon fii ci diwaan bu Touba diagnostiqué feebaram fukki fan ci weeru mars euh, ki nga xamee nag kon mooy soxnaam euh, diagnostiqué nañ ko nekkoon kon positif na ci coronavirus bi ñoom ñaar ñi ñëpp nag jamono ji ñoo ngi leen évacué centre des maladies infectieuses et tropicales bu hôpital Fann bu nekk ci diwaan bu Ndakaaru ñeneen ñu nekk ci biir njaboot gi di juróom ñoo xam ne jàpp nañ ne jege nañu lool euh, moodu moodu bi ak soxnaam defal nañ leen ay prélèvement Euh, yóbbu nañ ko ca institut Pasteur bu mu Ndakaaru jàpp nañ ne xëy na résultat yi mën na am wàccandi ci ci biir euh, bésu alxemes bi euh, yeneen njaboot gi également jamono ji ca koñ ba ñu nekk def nañ leen en quarantaine ngir bañ benn wàllante am seen diggante kon muy ñaareelu cas boo xam ne jamono ji nemmeeku nañ ko ba tax na médecin chef de district comme ni nga ko waxee war a def conférence de presse tey ci ngoon ci siège ba ngir waxtaan ak askan wi waaye également euh, dëggal xibaar yu ñu mel autorité médicale yooyu sax ba léegi ñu soxna naata ñoo ngi gën a rassuré li nga xam ne ñooy askan wi di leen xamal ne ñaari cas la fu ñu toll nii ñu gën a déglu li nga xamee ne kon mooy message yu wér-gu-yaram yi nga xamee ne waa ministère de la santé waaw Mouhamed Jo sant ko gërëm ko dinañ àndaat ak yow ci ni mu gën a yaatoo ci wàllu woowule kon leen ni ñoom ñooy ñaari sénégalais yi njëkk yi am jàngoroy coronavirus bu mu duggee ci réew mi boobu ba léegi démb sax nag jëwrin bi ñu dénk wala boog ministère de la santé def na ab taxaw seetlu ci feebar bi fañ ca tolloon démb ñu ne woon ñett lañ ci doon wàññi waaye ñu ne évolué na fii ñuy toll ak yéen beneen mbir biñ ci mën a jàpp euh, mooy ressortissante britannique bi nga xam ne euh, moom jot nañ ko faj euh, ba mu wér Fatima Touré ak Ba. ci ayu bés yi ñu génn ñu jàppoon ni rek li nga xam ni moo di feebar bi di Covid 19 daat na rek dellu bu baax ginnaaw fii ci Sénégal waaye tey nag amaat nañu beneen cas bu bees nga xam ne rek testé nañ ko mu daati positif bi li cas nekk ab sénégalais. am nañu benn cas suspect bu ñu biñ ko testé cas bi dafa positif ci coronavirus benn sénégalais la bu nekkoon Italie ñëw vendredi 6 mars fii ci Dakar jaare ko aéroport international Blaise Diagne mu consulter mardi 10 mars ëllëg sa bi mu seetloo ne commencé na am ay màndarga jàngoro gi bi mu consulter nag prélevé nañ ko ci centre structure de santé bi nga xam ne mu ngi foofu ci Touba isolé ko. lu jëm ba tey ci wàllu virus bi juróom ñaari cas suspect daan nañ leen rek yóbbu ca institut Pasteur waaye nag testé nañ leen ñoom ñëpp dañoo daal di négatif lu jëm nag ci wàllum traitement bi xel mun cee dal. ministère de la santé ak action sociale mu ngi xamal askan wi ne. ci ñetti malade yi nga xamoon ne dañu leen hospitalisé woon service maladie infectieuse am na kenn koo xam ne def nañu deuxième contrôle ñaareelu contrôle bi bi ñu defee ñaareelu contrôle bi contrôle bi dafa négatif loolu mooy firnde ne malade boobu nga xam ne ñu ko doon traité ci service maladie infectieuse wër na. li ñu mën a jàpp mooy sénégalais bi nga xam ne moo njëkk am lii di feebar bi di coronavirus moom nag yóbbu nañ ko ci hôpital Fann ci service des maladies infectieuses soxna si nga xam ne nag di ab britanique moom mi nga xam ne sax testé woon nañ ko mu daati positif ci coronavirus ba ñu sukkandikoo ci kàddu ministère de la santé moom wér na da dina ñibbi këram ci lu yàggu dara ba feebar bi commencé ba tey ñu daati rek nemmeeku ni am na juróomi cas yoo xam ni daal nañ leen di confirmer wante ñaar ñi. ci liggéeyu ñaax nag naka la ñuy def ba moytandiku jàngoro boobu boobule nag fële ca Podor soxna yi ñoom dugal nañ ci seen loxo bu baax a baax ndax xam nañ ñi diwaan boobu boobule ci frontière bi la nekk te lu bëri ci ay touriste dañ fay ñëw saa su nekk rawatina ci luuma yi am euh, foofule am na benn mouvement bu nekk foofule nag nee na soxna yi ci boppam ñoom ñoo war di gën di mën a tasaare xibaar yi ndax ñoom ñooy yore kër yi ñoom ñooy xam la fay xew bu seenu Diop Habib Seck fu nekk nag la ñu daal di jógee ñoom jigéen ñi ci fi nga xamante ni mooy ci Podor jógee ci dëkk dëkkaat yi fii nag daal nañu sensibiliser jigéen ñi nga xamante ni dañu nekk ci kaw gi ngir lu jëm ci wàllu feebar bi ñu duppee coronavirus ñu mën ko moytu ci ndaje bi nga xamante ni fii lañ ko doon amal daal nañ leen di sensibiliser ngir feebar boobee ba ñu dugg ci yenn ci gox yi rawatina fii ci Podor. te feebar bi nga xam ne mooy coronavirus bi nga xam ne mi ngi fii lëmbee nit ñi déjà tiit nañu kenn xamul fu ñu jëm panique bi am na feebar baa ngi fii mesure yi nga xam ne préventif war nañ ko jël am na naam xam nañ ko am na yi nga xam ne xamuñu ko aussi. boo gisee nit ki kontaan da nga set boo setee nga wër wér mooy tax nit ki kontaan boo boo setul jàngoro daf lay yomb te bu la jàngoro laalee. dara dootu la neex. ñoom jigéen ñi nag daan nañ leen di gën a ñaax ngir lu jëm ci wàllu feebaru coronavirus bi leen ñu mën ko moytu ñoom ñooy nekk ci kër yi ñu bëgg ñu doon ay relais ngir ci marché yi ak yu ni mel ñuy waxtaanee feebar bi waaye tamit sensibiliser seen morom yi. fi génnee ñu yaatal ko ñii dem marché ci mbedd yi ci biir kër yi yaatal ko waxtaanee ko looloo ñu yëkkati nii ba ñu def bis bi ñu def tey. ñu gis médecin chef mu indil ñu fii médecin yi pour ñu jàppale ñu euh, orienté ñu teg ñu si yoon bi nga xam ne daañu mun a euh, jël ay mesure pour saafara pour gattu na maladie bi nga xam ne mi ngi fii si Sénégal ñun ñi nga xam ne ñun jigéen ñooy porteuse de voix daañu mun a laxasaayu dugg si gox-goxaat yi fu gën a ruqe pour ñu mun a sensibiliser davantage suñu moroom jigéen ñi ak xale yi. ndaje bi nag may na kilifa yi nga xamante ñoo nekkoon ci diwaanu Podor ñu daal di ñaax jigéen ñi ñu gën a seet ndaxte jàpp xamante ni war nañ ko def ci wàllu kër docteur am nañ ci rôle bu am solo boo xamante ni war nañ ko joué fii nag daan nañuy gën a ñaax jigéen ñi ñu roy ci ko mel na maam Fawade Wele maam Diarra Bousso ak waajur bu Cheikh Omar Foutiyou Tall ci jukko yi ñu amoon. dañuy dem ca ministère de la santé fekk jëf euh, Cheikh Diop Cheikh maa ngi lay nuyu Cheikh. waaw euh, Cheikh Diop diñ euh, koy defee fan yi yëpp bés bu nekk yaa ñuy teewal foofu baaxee ñu xibaar yi mujj ñeel euh, jàngoro yi coronavirus ak autorité yi ni ñuy moytandikoo jàngoro boobu boobule rawatina ci wàllum ñaax gi ak ripost bi Cheikh. mu leen nuyu di yi nga xam ne ñoom ñoo safo télévision Futur Média saa su nekk ni ñu koy defee euh, fii ci ministère de la santé ñu teew fi ngir jukki leen xibaar yi tukkee ci feebar bi di coronavirus euh, soxna naata lu mu ci mënti doon euh, si subaak léegi yéen a ngi dégg wax ji ci rek ñi nga xam ne ñoom ñoo di way taskatu xibaar yi ci beneen ab cas boo xamante ni moom la ñu nemmeeku ca Touba ñu jàpp ne booboo gën a rek récente di rek soxnaak moodu moodu bi nga xam ne rek moom moo jugee ca itali lu mu ci mënti doon bu ñu waxee ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa ministère de la santé weddi wuñ ko waaye itam dëggaluñ ko lu mu ci ti doon xamal nañu rek ne lu taw taxam jarta yàkkamti daañu amal lu ni mel wala boog daal di koy firndeel ci point de presse bi nga xam ne dinañ ko amal ni ki tey jii ci ngoon leneen itam lu ñu mën a jàpp mbokk yi bokk na ci trois cas yoo xamante ni xam nañ ne que xel ne dañoo am li nga xam ne rek moom moo di feebaru coronavirus loole nag di ay test yoo xamante ni institut Pasteur moom moo ko daal di euh, fësal ci kanamu askan wi ki nga xam ne itam moom moo di directeur général directeur bu cabinet bu rek euh, jëriñ jiñ dénk wàllu wérgu yaram daal di koy dëggal waaye itam euh, daal di koy xamle euh, ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di askan wu Sénégal loolee la diggee ak askan wi ñun itam ñu digg ko ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di suñu ay mbokk téléspectateur soxna naata lum ci mënti doon dinañ fi teewaat ngir daal di leen di digtal cas booba nga xam ne ñu ngi koy ruumandaat foofe nga xam ne moom moo di ca Touba daañ ko dëggal ngoon wala boog daañ ko weddi lu mu ci mënti doon nañ ko xam ni ki ngoon soxna naata ma bàyyi la nga wéyal li nga xam ne moom moo di xibaar yi bu fekkee rek amoo beneen ab laaj. jërëjëf Cheikh Diop fileeg boobu kon eh, ñi eh, jiite eh, wala boog ñi ngànk paj mi foofu ci Touba ñoom dëggal nañ ko ñu ngi ci plateau bi ak Seydina Camara moom moo jiite sénégalais yi nekk fële ca Brescia nekk ca Italie ko wër sëñ bi Camara ñu ngi lay ziar di la nuyu. ñu ngi lay ziar soxna naata di ziar ñëpp ñi nga xamante ni si ñoo ngi topp journal bi ak di seetaan TFM. Mm-hmm. sëñ bi Camara benn tiitaange moo am ndax jamono ji Italie mooy ci Europe te gis nañu it kaa euh, sénégalais bi njëkk bi am fii nii foofu la jóge mu indi ab benn tiitaange fii ci askan bi ba ñu bëri sax nag samp laaj ne naka la mën a amee jamono ji ndax dañoo war a bàyyi wala bokk dañoo war a xañ na am nenn nu ñu waxtaanee ak sénégalais yi nekk foofu ngir bañ ba jàngoro bi maara de imisi law fii ci réew mi. waa jërëjëf soxna si ñoo ngi dellu di xamal gannaaw ba nga nee sax moom mooy eh, dëkk bi nga xamante ni si moo ko gën a am ci Europe. Mhm. ñu wax na ci àdduna wërngër képp mooy ñaareelu dëkk bi nga xamante ni si gannaaw Chine am na ko ci wàllu nombre ci li personnes yi nga xamante ni si dal na leen mhm. alors bu loolu weesoo aussi ñuy xamal ne ñun eh, association lan lin mën suñ rôle moom mooy di communiquer di sensibiliser te ba amee feebar bi feeñee ba tey xaaruñu kenn ñoo ngi ci hmm. loolu nag à travers toutes les associations yi nga xamante ni si ñoo ko jiite woon nekk ci Lombardie bi muy zone bi nga xamante ni si fa lañ dëkk eh, ñoo ngi ci doon bay suñu waar mooy ba mu amee ba tey ñu ngi wax sénégalais yi nañ dëppoo ak règle yi nga xamante ni si moom la état italien tegoon waaye dafa fekk ne nag euh, comme ni nga ko waxee luy ay di jàmbat bu coow li tollee noonu sa doole xaw a néew mën na ni ndax gannaaw autorité italienne yi yow da ngay taxaw di def loo xamante ni si yow mi koy def ci sa bopp da koy def ak ay limite donc euh, li ñu ci waroon ci sensibilisation def nañ ko mais tey boo xoolee réew mu mel ni Italie <coughs> dan naan résidents yi ñu ngi toll ci cent dix mille waaye résidents yi bu buñ koy wax mooy ñi nga xamante ni si am nañ këyit ñu mën leen a wax ne fii lañ dëkk service consulier ñu xam ne waaw ñu xam mooy mooy loolu mais am na lu ko ëpp parce que am na ci ñeneen ñoo xam ne am nañ séjour mais amuñu résident ñu bëri lan gannaaw si loolu am na ñeneen ñoo xam ne tamit daanaka ñoo gën a sax amati ëpp solo mooy ñi nga xam ne amuñu këyit donc daanaka fu ñu waxee ne deux cent dix mille sénégalais ña nga fa multiplier nombre boobu par deux. ñu ful ko ñaari yoon ñu mm-hmm. donc loolu su amee euh, ñu topp ci di wax boobu ba tey du ñàkk nag euh, ñenn ñoo xamante ni si moo xam laata loolu programmé woon nañ seen i vacances te tamit yëguñu woon seen dara euh, ci seen yaram. ñu njortoon mais ñun waxoon nañ ne ñëpp ñi nga xamante ne si départ gun nan yebbi toog fa ndax fa nga a toog wax dëgg yàlla. Mm, ndax uh, waaw ndax uh, jamono ji ni nga ko waxee Italie ci boppam sax ñoom daanaka mën nañoo wax ni uh, quarantaine la ndax liñ koy dundee jamono ji te it sénégalais yi bëri foofu le li am fii ci Sénégal tam dañuy bëgg di ñëw di ko fekkee lu ci mel ni ay ndaje yoo xamante ni dafay am ci wàllum diine fan yëpp ndax dina yomb tamit ñu wax leen ñu mën a toog ndax euh, bu ma juumul am na xañ na benn sénégalais bu ñu teg ay daan parce que Italie itam seen mesure quarantaine yi dañ koo teg fu leer ci wàllum yoon boo ko mm. toppul am na lu la ci mën a fekk. waaw loolu xam nga lu lu am la parce que tamit il faut que ñuy comprendre que ni sénégalais yi nga xamante ni si danoo nekk Italie. Euh, dañuy faral di topp lii di information yi parce que ngoon gu jot. muy protection civile muy état italien danañ génn waxanteeg nit ñi ci lépp dogal boo xamante ni si jël nañ ko wax li nga xamante ni si fa la feebar bi toll. Euh, yàlla dimbali nañu aussi ci association yi am nan ressource humaine bu doy boo xamante ni si ñu ngi góorgóorlu ci texte yooyu di ko tak euh, traduiraat en wolof pour jottale ko ñëpp waaye nag xam nga information jotewul ñëpp comme ni nga ko waxee waaye suñ kéemtalaay kàttan ña ngi ko cay def xew-xew yooyu di am aussi li koy gën a fésal moom mooy ne boo xoolee tey ci dëkk yooyu ñu lay nekk ñun euh, nga xamante ne si fa lañ dëkk jiite association bi mu tàmbalee ko ci ñun ñii def nañ ci ay vidéo waxtaan ci ka nga xamante ne si moo jiite di ilimaanu kër Serigne Touba ga di Pontevico nekk ci biir Brescia waxuma la ne def na ci waxtaan waaye ñun ñëpp àndandoon génn jël ay dogal jullik àjjuma amatu fa daayira amatu fa gàmmu amu ñu tëj lépp loo xamante ne si ndaje la woon Italie moo yegg foo xamante ne si réew ma yëpp la tëj tere lépp daanaka mm-hmm. ñett rek mooy tax nga war a mën a génn te daan du la ci fekk mm-hmm. moo xam da ngay dem pour liggéey te danañ la jox këyit boo xamante ne si da koy wane mm-hmm. wala ngay génn dem ci wàllu wér-gu-yaram di wala di faju ji loolu am nga justificatif wala nga xamante ni si da ngaa génn pour mën a dem nduggi loo xamante ni si mënta ñàkk ci eh, ak kër gi mais bu ko moyee boo génnee ñu teg la daan ah, muy urgence euh, yow yaa ngi fii waaye da ngay jokkoo ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk foofu muy association yi teg ci ni nga ko waxee sànq kilifa Italie bu amee dara dañ koy tasaare Euh, sénégal yi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofu ci Italie ci ndorteel bi ñu ngi doon wax xaj na amoon nañu tuuti tiitaange waaye yëf yi ni muy lawee dafa jéggi dayoo ndax jamono jii tiitaange boobu moo fa am ba léegi wala am na ñuy xalaat ñibbisiwaat. waaw xam nga tiitaange moom euh, ba mu tàmbalee ba tey ma nga fay am te day yokk ni feebar bi di yokkee ndax feebar boo xamante ni si dañ laa waxoon ne la au début benn zone rek la laal. Mhm. mu dem ba law fépp ngay gis nombre boo xamante ni si dafa tàmbale woon ci benn jékki-jékki dem juróom-benn jékki dem fanweer dem téeméer bu yeggee ci junni ba yegg fukki junne ak ñaar foo jaar boo tiitoon benn da nga tiit fukk loolu nag ma nga fa waaye taxul ba fii ñuy wax ak ñun association bi ñi nga xamante ne si ña ngi leen ciy jot di ci waxtaan ak ñoom ndax ngoon gu ne ñoo ngi def suñuy groupe whatsapp yi nga xamante ne si ak suñ facebook yi ñu amoon ay waxtaan mais amagul ci ñi nga xamante ne si c'est des personnes averties ku déclaré daw wala dara xeex au contraire fii ñuy wax ak yéen euh, mën na ne système sanitaire Italie dafa nërmalu parce que bu ñu demee ba nga xamante ni si Brescia gi ñu dëkk nga xamante ne si hôpital boobu bokk na ci dix premiers hôpitaux yi nga xamante ne si ñoo gën a rëy ci Europe ñoom ñu génn di wut wallu ba ñun ñu gis ne ñoom seen bopp génn nañ di wax ne matériel bi ñuy liggéeyee jumtukaay yu doyatul tey fii ñuy wax ak yéen foog ñu koy wax nit ñi di ko xam buñ ñëwee ci hôpital bi ñoom ñoo ko génn wane ko wax ko dañuy fekk ki nga xam moo gën a màggat machine ban ko pooseeloon moom la ñuy wekki bu xale ñëwee boo xam moo gën a néewi at kan wekki alaakulli àllin day wuy ji borom ndax lu machine boobu moo ko doon dundal ñu def kon ñu ngi soobee fi mu toll nii ki gën a néewi at. Mhm. donc ñun ñoo ngi organisé wu di dajale ay koppar pour mën a dimbali structure sanitaire yooyu kon yaakaar naa ni ñoo ngi bokk ci xeex bi nga xamante ni si moo koy mhm. xeex waaye tamit ñu ngi góorgóorlu pour xeex bi ni ñu bokkee ci ñiy doxal réew mi. noonu la ñuy xeexee luy jëm ci luy nasaxal réewum Sénégal. Hmm, laaj bu mujj euh, Seydina Camara euh, ba fii ñu toll nii amul benn sénégalais bu ngeen dégg foofu ca Italie boo xamante ni dafa am jàngoro bi. waaw ba léegi ñuy waxanteeg yéen parce que xam nga structure sanitaire yi ñun yàlla day dogal ne boo nekkee président d' association da ngay faral di am possibilité di bokk ci commité de gestion de crise bi ba fii ñuy waxee ak yéen alhamdulilah waxaguñ ñu benn sénégalais boo xamante ni si wala africain sax ñu déclaré ñu ko officiel mais nag dañuy fàttali ne. tey ñoo ngi toog di wax na am na benn moodu moodu bu jógee Italie foofu indi ko fii kon xam naa ni sunuy gouvernant par voie hiérarchique ci mission diplomatique yi danan topp loolu ba nga xamante ni si fa mu jógee ña mu nekkaloon avion beeg waxuñu ko sax waaye ba ca réew ma ca Italie fa mu dëkkoon kon loolu moom ñu ngi ci am njort bu rafet ne xëy na danañ ci bàyyi xel waaye ñun daal duñ jóg duñ tàyyi ci li nga xamante si mooy sensibilisation bi di massaw ñi nga xamante ni si ñëpp ña nga fa parce que man mii di wax ak yow sama njaboota nga fa sama soxna ak samay doom maa ngi jiite tamit mbooloom yi mm-hmm. bu ñu liy fekkee fii suñ devoir mooy a dalal gën a wax chaque jour mën naa ne 3 heures du matin du tax ñu nelaw te 8 heures ñu nekkaat ci pour rek mën a gérer situation bi di féliciter tout tous les acteurs yi nga xamante ni si ña nga fa muy ci association yi ci daayira yi ak personne yi nga xamante ni si danoo nekk ci syndical yi wala yeneen ak leneen loolu daal mooy li nga xam ni moom bëggoon nañ ko wax nit ñi mën a wax waa Sénégal tamit ñu fàggandiku moo gën ñu faju parce que Italie nii la tàmbalee woon ñeenti fan juróom ñu dem dugg marché yëpp dootoo gis loo jënd ñu tool ñetti fan juróom-benn fan une semaine ñu ne ah réew mi daal na wàññeeku na ñëpp génnaat nekk ci activités yi te loolu moom la ñuy nemmeekuwaat ci réew mi ba mu dellu si waatee dafa sonal ñëpp ndax feebar bi dana nekk ci sa yaram mën na cee nekk fukki fan ak ñeent te doo ko xam mm. kon nag ñu moytu te gën a sellalaat te dëppoo aussi ak li nga xamante ni si ministère ma ngi koy wax mm. ñu mesure d'hygiène yi mm. jërëjëf jërëjëf Seydina Camara moom moo jiite ba ca a baax ci jàngoro beeg tolluwaay wi ak communauté sénégalaise bi nekk ca réew moomule euh, ci wàllum tàgga ci wàllum wér yaram la ñuy des ba léegi ak euh, feebaru roño tey jilee la ko Sénégal di màggal ca diwaanu Kaolack nag moom dafa mel ni lim ba dañ ko ful diggante 2014 ak 2019 euh, ndax bàyyeekoo na ci téeméer juróom fukk ak benn ñëw dal ci juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaari nit yu am jàngoro boobu yee te hôpital bi benn unité de dialyse képp la am muy machine yooyu la nga xam ne ñoom ñooy seggi roño yi yi tey jilee am na juróom-ñett fukk ak juróomi malade yu toog di xaar ngir ñu mën leen a jël en charge muy ay jumtukaay yu manqué bu baax a baax foofule dañ ciy déglu docteur Adama Kama Yat moom moo jiite service néphrologie muy unité bi ñu dénk feebaru roño yooyu la ci hôpital bu kaw Kaolack ci micro Ibrahima Diame ak Faly Gueye suñu centre dafa ndaw maanaam centre dialyse bi centre bu ndaw la ak li ñuy recevoir ci population ak suñu position géographique mooy ñu def extension pour am au moins ay 20 générateurs wala cinq générateur loolu moo ñu gënal waaye su fekkee ni ministère aussi parce que moom peut-être dafay limité ci budget te hôpital aussi amul doole bu muy boo xam ne mën na ne xaaral ma tabax service wu néphro donc ñun ñu ñuy ñaax autorité Kaolack yi maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk Kaolack te ñu ngi yëngatu peut-être ci leneen ci ci yeneen activité mën nañu jàppale hôpital bi ñoom mën nañu jàppale ko population kaolackoise bi ñu tabax fal leen benn centre de dialyse bu mag boo xam ne capacité d'accueil bi dina am doole. il faut ñu xam ne feebar ñoo moom euh, bayul kenn du mag du xale du am ku xaalis ku am xaalis ku amul xaalis. du am donc képp daal mën na cee dugal loxoom ku nekk mën na cee war dugal loxoom pour que ñun ñu am santé bu mag parce que tout simplement njëriñu ñëpp lay doon parce que ku nekk mën na cee ëllëg mën na cee soxla. ñenn ñi euh, loru woon ci mbënn mi nekkoon ca banlieue ba te ñu yebal leen ca cité Tawféex bu Tivaouane Pël ñoom nag ay jafe-jafe yu bëri lañ am euh, ci wàllum euh, wér-gi-yaram bu ñu bëggee faju nekk na lu métti mekk métti benn poste de santé képp moom moo am foofule te dafa ñàkk ay jumtukaay lu bëree bëri rax ci dolli diwaan bi pour dem fa dangay sonn ndax dafa ruqe loolu daanaka dara amu fa reportage Ousseynou Thiam Ahmadou Bamba Samb nu taw Tawfekh yaakaar nekk ca Tivaouane Peulh ñàgg nag ay jafe-jafe lañ am ngir nag mën a faju gis-gis bu du mel nag tukkee ci mouvement bii di mon pays mon avenir amaloon fa ay journée de consultation médicale gratuite jagleel ko ñoo ñu nga xam ne nii ndox mi dafa nangu woon seen kër ñu toxal leen ca barab ba ñoo constaté ndóol bu nekk si commune Tivaouane Peulh ñàgg daanaka ndóol bi dafa jéggi dayu soo xoolee si wàllu santé euh, dafa sooxe dafa sooxee de telle sorte que tey jii population bi pour ñu dem defi consultation j'avoue que c'est difficile c'est difficile surtout que mu amee surtout dëkk bi léegi diabète bi bëri na tension bëri na cancer du col de l'utérus bëri na euh, feebar daal macha allah bëri na te soo xoolee population bi tey jii lu ñu lekk la ñu tal donc dañuy ñëw dimbale leen si loolu aider leen defalee leen consultation bi nga xam tey jii il aurait dû payer cher ñu ñëw ak suñu partenaires yi jàppal leen si pour ñu mën ko def gratuitement euh, ça daf ñuy dimbale wàll au même temps centre yi nekk fii xoolaale santé yi li ci manqué ñaax état d'abord nga xam ne moom mooy responsable de ça ensuite ñun ñu xool en tant que acteur de développement lan lañ ci mën a indi comme contribution. discours bi nu mel nag la kii di infirmier chef de poste bi tamit am. poste santé bi moom jar naa jàppale parce que bi ñu ko créé ba léegi c'est-à-dire que euh, jotuñu ay équipement yu bëri donc cela veut dire am na équipement yoo xam ne dañ ko manqué te poste santé presque boo xoolee ñett rek bu fekkee am na ñi nga xam ne ñooy fa war a liggéey dafa laaj nga am ay euh, jumtukaay yi. jumtukaay ñaar la il faut nga am ay locaux c'est-à-dire ay batiment yu baax c'est-à-dire yoo xam ne malade yi bu ñu ñëwee nga mun leen accueillir foofu il faut nga assi nga am équipement médical bi nga xam ne bu ñu ñëwee da nga leen mun a jël en charge cela veut dire ñun soxla nañ instant yi ni ñu defaraat poste bi nii yokk saal yi mais aussi euh, dimbali lañu ci matériel médical bi. gannaaw jafe-jafe woowu ci wàllu faju woowu askan aussi jànkonte ak yeneen jafe-jafe jëm ci wàllu ay ñàkk yoon waaye tamit lii di ñàkk kaaraange. jërëjëf Ousseynou Thiam ñu ngi leen ko doon wax sànq lu toll ci ñaar fukk ak ñaar ci ay notaire yoo xam ne dañoo jàng ba noppi boobu ba léegi nekk di stage nee ñu ëllëg dinañ door ab ñaxtu xiifal ngir njiitu réew mi xaatim seenub décret bi tax ñu mën a toog def seenub liggéey na mu waree décret boobu 2016 ba léegi ñu ngi koy xaar Dakar euh, teg ci ñu ne li tax mu tardé sax ñu ne dafa am ay notaires yoo xamante ni daal dañoo siis bëgguñu kenn ku dugg euh, ci seen liggéey euh, boobule Aminata Mbaare Sow ak Amadou Ba fekkee nañu seen ndaje bi tey ci suba. atum 2013 la ñu réussir concours notaire boobu ak léegi nag ginnaaw bi ñu defee seen stage di équivalent formation bi lee ñii di ay notaire mënuñu exercer correctement seen liggéey. def suñu concours bi ñu ko waree def def suñu stage ni mu waree. ba kenn ku si ne si ñun jot sa attestation bi waral bi wane ne def nga stage si ni mu waree nga pare ñu war la par décret boobu ba léegi mun ñu fexe ba nomee la pour nga mën a exercer sa profession. bokk na ci li ko waral décret bi war a jógee ci président de la république ngir ñu mën a amal seen liggéey ci anam yu mu waree. son excellence Macky Sall moo war a signé décret créer ay charges ba noppi daal di koy attribuer ñun 22 yi nii mais boobu ba léegi loolu lañ deful dafa am ñenn ñoo xam ne ay notaire lañ bu ñu sañoon tey. notaire du weesu juróom fukk ak benn ñoom rek ñoo ko exercer wala ñoom ak seen njaboot wala ñoom ak seen ay doomu xarit loolu kese la. lobby yooyu identifié nañ leen identifié nañ leen xam nañ ñan la waaye comme ñun dañoo dañu nekk ay nit ñu yar di ay boroomi war ma boobu ba léegi ñu ngi xeex lu ñuy xeex si courtoisie dépasse wuñu kenn waaye nag li ñuy poussé nii buñ fa yeggee. dinañ commencé joxe ay tur. ginnaaw bi ñu amalee ay conférence de presse ak fas nañu yéene tàmbali grève de la faim. képp kuy autorité saisir nañ la mais amul benn réaction ñu ngi def nag sacrifice bi mujj mooy que ne bu ëllëg si àjjuma ji buñ jullee jumaa ba noppi fas yéene nañ dàkkal lépp luy lekk ak naan. ñu ngi sukkandikoo ci collectif boobule ëpp ñu cinquante loolee nag ñu jàpp ne dafa war a dakk ñu ubbi concours yu notaire yooyu léegi nga xam ne gëj am ci atum 2013 ba pare tamit ñi nga xam ne jot nañu def seen formation bu pare ñu daal di leen jagleel décret bi su ko defee ñu mën a exercer ci anam yi mu waree. ñu dem ca Mboro fekk ji fa ñi yëngatu ci bayum dër bi rawatina pombiteer ñoom nag jamono ji am na lu bëree bëri lu ñu bay ren waaye mënuñoo fexe ba jaay ko mu ne xuus ci tool yi amuñu fuñ ko denc denc it ba pombiteer bi lu ca bëri sax nag di nëpp dafa am ñu nekk ci marché bi di leen jaay doole ëpp leen doole loolu sax loolu waral seen i jafe-jafe ñuy woo agence de régulation des marchés ak direction de l'horticulture maanaam ñu ñu denc bayum légumes yi ca ministère de l'agriculture ngir mu jël am Cheikh Anta Diop sëy laa tiir ca Mboro. ne ay baykatu dër lañ te yëngu lu jëm ci wàllu pombiteer ak soxna yi nga xamante ne sax ñoom dañuy jënd ka jaay ci marché bi génnoon fii ci Mboro doon naqarlu nee nañ de ren jii de li ñu góob ci pombiteer bari na lool amuñu fu ñu ko denc kenn mënu koo jaay ba tax yu ci bëre ngi nëpp. noo toog fii ànd ko waa Kayar waa Kër Abdou Ndoye waa Bayax waa Noto Kañak waa Jogo waa fas booy mënuñoo béy ba ba yeggal tey engrais bi jaay weer ak lu topp bay dugg ñaari weeram ñaay bi war a génn mu jël ay camion yu bari sarse ko tuur ko Ndakaaru tuur ko Touba tuur ko Kaolack ba Fuuta foo dem tey pomputeer bu sew bi ñu ngi koy natt ay pot di ko jaay pot ñaar fukk saaku cinquante kilo bi ñu ngi koy jaay deux mille ba trois mille xam nga loolu képp ku taxaw ci ñaay bi tey yaa ngi ci njàqare. nee nañ sax lii bu ñu ko seetaanee mbayam pompiteer dina dee fii ci Sénégal rawatina ci zone des Niayes. li nga xamante ne moom la ñu euh, moo nar a yàq euh, mbay mi ba tax nun nar a takk sunuy loxo toog génne sunu loxo ci mbay mi sunu doom yi delluwaat ci géej gi dara tegunu ko lu dul waa seen india seen india nag jàpp nañ ni état moo leen jàppale moo leen doole dooleel ñi nga xamante ni ñoo yëngu nag lu jëm ci wàllu mbayam dër rawatina pombiteer jóge woon mboorook fas booy jàpp guy jama ba jogo ñu ngi sàkku ci waa ARM ak waa direction bu horticulture ñu dikk fi ci zone des Niayes lali pexe ngir nag jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñu nekk de mu mën leen a teggeeku tey mooy ñaareelu fan euh, ñaxtu ñi nga xam ne ñoom ñooy jaay euh, mbuusu ndox euh, ñuy ñaawlu loi bi tere mbuus te ñu fas yéene koo jëmmal ñaar fukki fan ci weeru avril bi ñu dëgmal ci banlieue bu ndakaaru ñoom sax laataa loolu nee nañu lu toll ci fan fanweeri junni ci ay nit mën nañoo ñàkk seen xëy bu fi loi bi tàmbalee dox ci banlieue bu ndakaaru nag jox nañu kàddu ñi jaay mbuusu ndox yooyu le xam nañu li leen di xaar ba tax na ñu ci bëri ñu ngi xool ci yan anam la ñuy Malick Diop. buntu pikin jaaykatu ndox yi léegi-léegi ñu dox ci diggante woto yilee ñoom ñëpp fii kenn àndul ci dogal bi ñuy jël ngir aaye mbuusu ndox yi ñuy jaay yilee ah arrangé wu ma de waaw arrangé wu ma de parce que bii rek laa xam waaw bii mooy sama liggéey bi depuis ma ñëw ay Dakar bi bii laa xam boo arrêté bii arrangé wu ma dara dégg naa ko taayale ñu ne Macky Sall day ndox mi bii mooy sama ñeenti at waaw ma nekk si si laay daan sama doole. moom dina yéeme de waaw tàngaay bii nii xam nga ni tamit ñii di romb di jënd ndox noonu yaa ma xam day si ñoom waaw. seeni ëllëg lëndëm kurus la def ëpp nañu fanweeri junni doomu aadama yoo xamante ni ci lii la ñuy daan seenub doole looloo waral ba sax ñenn sa ñoom jaaxlee tax ba ñu ngay xalaat ëllëg bu jegee fii lan lañ war a mën a liggéey. caractère ma liggéey liggéey kër ba ma doon def ndax man liggéeyu kar balaa gën a tàmm hmm. njaay mi tàmm ma ko ñàkk kee ma si dugal rek ñàkkul ma def waaye mu caractère ma wuti leneen xanaa ngeen dimbali ñu rek bañ bañ bañ ñoo lii ñu jàppandi si si kanam. ah boo daal man bii rek laa xam bi ñaar fukki fan ci weeru avril lay door maanaam fii léegi juróomi ayu waaye am na ñenn si ñoom ñoo xamante ni ñi nga am yaakaar yaakaar ci ne dinañ wéy di def liggéey bi maanaam jaay ndox yi nekkee ci mbuus yi ñu aaye. loolu baax na daal waaw loolu baax na daal. yàgg naa fi ma jaay bi mais ay affaire bi eh, mois mois bu mars bi mooy gën a ay dogu quoi. ñi jëfandikoo ndox yi ñoom ñëpp tamit ñoo ànd ci wax ji. nee ñu mbuusu ndox yi baax na dinañ ci faj mar waaye buñ ko mënee dindi moo gën ndaxte dina fi jëlee ay jàngoro. jërëjëf Salif Sow ñu wéy ci ah, tàggat yaram rawatina ci làmb ak arbitre ya yëngu ñoom nag ñu ne dinañ jàmmarloo ak ah, CNG de lutte commité national de gestion bi ginnaaw ah, ba mu jógee dogal teg daan ñeent ay arbitre ñaar ñi nga xamante ni dañ leen a juróomi at duñu liggéey keneen ka ca des ñaari at ka ca des moom giirub dundam dootul arbitré ay làmb ñu ne lu yàggatul dara dinañ amal benn seenub dox ñaxtu fii ci euh, Ndakaaru dañ ciy dégg Wenceslas Demba John bokk ci arbitre yooyu la ci micro Cheikh Sadibou Diarra ak Mari Dieng. gis ngeen nii nii carte yaa ngi nii tout le monde se sent radié parce que Siteu dañ ko yónni donc bu ñu ko radié ça veut nañu arbitre donc loolu il faut ñu xoolaat ko. deuxième act mooy lan danañu def conférence dimanche matin lieu bi dañ dinañ ko xool leur c'est à dix heures donc lu ci mënti nekk rek on va vous informer ñu ngi invité ñëpp encore moo ngi koy bamtuwaat invité ñëpp ñëpp waaw marché bi nag ci jour conférence bi boo la ñëwee dinañu wax kan koy def jeexaleeg euh, coronavirus jàngoro beeg njeexital yi mu am ci wàllum tàggat yaram fële ca Espagne moom liga bi euh, dañ ko acc jamono ji ndax jàngoro joojule euh, te am na ay joueur Real de Madrid yoo xamante ni sax dañ leen a ber ngir diirub fukki fan ak juróom dafa am benn ci joueur it équipe basketball bu club bu Madrid boobee moom nag ba ñu xoolee yaram moom gis nañu ni jàngoroy Covid 19 bi mu ngi ci moom dañuy egsi ci ponk bu mujj li yëglekaay yi xëy ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jëf li wolof yi naan faf li ci l'observateur rek kay faf coronavirus gi ñu doon karaka garaka gor téere ji na Touba journal bi xamal ñu ne gile yoon du ab tubaab moo ko dugal ci réew mi waaye ab sénégalais moo ko féndi docteur Aloyse Waly Diouf directeur de cabinet bu ministre de la santé moo ko xamle démb waa ji ko féndi ab sénégalais bu ne woon Italie keroog àjjuma juróom-benn fan ci weeru ci la dugg si ci dëkk bi bër ki démb ci talaata ji mu am lu mu doon yëg ci yaramam dem ca centre de santé bu Daaru Marnaan fa la ñu ko testé fa ñu amee takk bu wér ci ne moodu moodu bi dafa coronavirus jamono jamono ji ma nga ñu téye ci l'hôpital Fann l'observateur nañu kilifa yi gàlloo wàllu wér gërëm gi ci réew mi donte nangu ñoo wax waa ji ci ban gox la dëkkee ca Touba ndax dañuy bañ leneen am ci li moo di moom waa ji di moodu moodu bi jabaram ber nañu ko quarantaine nañu ko bu nuppi def ci moomi prélèvement yónnee ko institut Pasteur bu Ndakaaru ñu war defi test ñoo ngi toog di xaar ba xam yan résultat ñooy tukkee ca test ya Le Quotidien moom it déet ci waaj yi ba coronavirus bi duggee ci réew mi ñu gis sénégalais bu ko amee li ñuy wër nag jamono ji moo di waaj bi mu yegsee ak léegi ñan la amal contact fa mu feeñee di ca Touba enquête dina kay nañu bari na ci askan ñoo xam ne bi ñu yégee ne Covid 19 bi dugg na ca dëkk ba ko ci laaj li mu lay wax mooy lépp teg nañu ko ci loxoy Serigne Touba journal Le Témoin xëy témoigné ne Sénégal mi ngi soog a am cas coronavirus bu mu moomal boppam ne yi fi amoon yépp ay tubaab ñoo ko jële ci seenum réew dugal ko ci réew mi gile yoon nag waa ji amee coronavirus bi ab sénégalais tigi la sour soit ne ko waa ji la sant moomee corona di muudu muudu bu newoon ci Italie moom ak jabaram ak i doomam yépp journal bi nee nañu indi nañu leen Dakaaru tuxu forcé ci hôpital Fann la leen def Vox Populi bind ci xëtamu njëkk ne ab muudu muudu bu newoon ci Italie moo ñibbisi Sénégal dugal virus bi Touba journal bi tegal ñu ci ne ba fi ñuy waxee ni ñetti cas coronavirus ñoo am ci réew mi juróom la ñu woon waaye ñaar ña mu di doomu France bi ko fi njëkk a dugal ak ndawus Angleterre doon liggéey ca Nations ñoom faj nañu leen ba ñu wér leneen lu wér nay xibaar jëm ci coronavirus bi Vox Populi nañu mooy ñañu ko doon joxtal ca Tamba ak ca Kolda test ya ñu doon def ca ñoom résultat yi génn na la ñu wane mooy coronavirus amu fa ba tax na quarantaine ñu leen quarantaine oon ber leen dindi nañu ko laatir bi nañu doomu Sénégal bi jëlee jàngoro ji ca Italie indi ko ci réew mi ba yóbbu ko tuuba Touba waajoojee juróom fukkeet ak ñaar la am coow li am ci diggante Mamadou Diop Isaac ak ba Balde ba léegi mooy mbambu ci dëkk bi l'observateur gis ne am na ak tëgg wëndeel gu ci am ndax maître Alassane Cissé di avocat Diop Isaac mi ngi ñuy wax ci l'observateur ne waa kër Dieynaba Balde yi nangu nañu retirer seenu plainte ci kaw Diop nangu ne moo ëmbal Dieynaba Dieynaba Balde Mamadou Balde di frère ci Dieynaba Balde ni ñu ci yéenekaay bi ba yëgul tiinul benn xeetu médiation pénale bu ñuy wax journal bi jàpp ne njabootug Balde ak seeni avocat bokkuñu lu ñuy wax avocat bi di maître Ciré Clédor Ly ni ñu ci journal bi li xew dëgg-dëgg mennam Dieynaba Balde ak Diop Iseg rek ñoo la mën a wax nu mu demee mu ne it Diop dafa waroon a am ngor wax lépp ni mu demee l'observateur dolli ñu ci ne Diop Iseg ak tuuma yi ñu koy toppee bu ko yoon dëggalee ñaari ati kaso jàpp juróom mën na ko caa fekk ñu xëy fekkaat coow li ci xët mu njëkk ci weeranteeg téesante ci la avocat yi ñaari wàll yi toll Les Échos ne ko rax ci dolli fi ñu toll nii tuuma yi ñu gàll ci ndoddal Diop ISEG mi ngi gën di réyëk a diis ne weesoo tuuma yi njëkk a jib mu di détournement de mineur viol suivi de grossesse incitation à la débauche dolli nañu ci tuumay jaay daraja abus d'autorité libération mel na ku ñu moom gëmul ne tuumay viol dina mën dañ ci dossier bi ndax ci ay xibaar yu feeñ ci enquête ba wane nañu ne Diop ISEG bi muy record ak journal stade xëy nañu ko séddoo record nañu quart de finale ligue des champions Sadio Mané ak waa Liverpool dañu koy waat génn nañu ci yëf yi Atlético Madrid ñoo leen éliminé démb ci seenub dëkk waa Paris Saint-Germain mu di ñoom Idrissa Gana Gueye record nañu jàll nañu ca quart de finale ya ndax démb dañoo dalal Dortmund duma ko defal ko affaire record bind ne Gana jàll na Sadio tarxis na journal stade nañu moom sa gànn Gueye la mu football démb du balu como gànna dafa meloon ni fitt gu mbër sànni ci milieu de terrain bi. mu ngoog fii la ñuy yem ci xibaaru euh, ci xibaaru digg bëccëg yi 19h30 incha allah yeneen xibaar di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm mbokk yi di leen jaajëfal bu baax a baax.